maa tuhibbuhu na nanga bëggee sa sëriñ kanaalu ngay jotee imdaadahu ndollalam maanaa sa mbëggeel ci sa sëriñ nu mu toll yëpp noonu la say ndollal ci wàllu maarifa billaahi di toll fal qawmu nit ñi haada qaalu lii lañ wax qawmu nag suñ ko waxee rek mooy góor yàlla yi góor yàlla yi nee nañ bi qadri kem maa tuhibbuhu na nga bëggee sa sëriñ ak na ko fonkee tanaalu ngay jot imdaadahu ndollalam jëlee ko ci yàlla ndax nee nañ nit su la xamalee yàlla toujours sa madat sa ndollal ci yàlla ci moom lay jaar kon nag noo ko bëggee noonu lay madat gi di toll fal qawmu góoru yàlla yi haada qaalu lii lañ wax nee nañ mbëggeelu taalibe ci sëriñam moo ngi mel ne essence bu bu nekk ci eh, oto saa boo xam ne dem nga ba essence bi jeex rek soo moytuwul oto bi day taxaw te ci mbiru yàlla amul taxaw loolu moo tax nag bi qadri ma tuhibbuhu tanaalu imdaadahu fal qawmu haada qaalu bàyyi ne du mbëggeel bi rek waaye nag anfiq tarifan taalidan fi talabi ridahu baatirin ashaara bi anfiq na nga joxe tarifan sa alal gu bees ak taalidan sa alal gu yàgg fi talabi ci sàkku ridaahu sa ngërëm madug sëriñ maanaam na nga joxe sa alal gu yàgg tarif ak taalit mooy lu yàgg ak loo xam ne lu bees la tarif mooy alal ju bees talib mooy alal joo xam ne nga judd fekk ko mu ne lépp na nga ko joxe fi tala bi ci ngërmande ridaahu maanaam fi talabi ci sàkku ridaahu sa sëriñ ah baadir na nga gaawtu in asaar su joxoñee dara sa sëriñ su joxoñee dara ne nañ ko def gaawtu ci tusi bi nga am sawaab mooy nga am eh, Yon, mana nga am eh, njub xam nga lii jàngee nañ ko ci sahaaba yi yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam préparé na ghazwa mu ne képp koo xam ne am na dara rek nga ñëw na indi ni dimbali ko ko ci xare bi Seydina Umar ibnul Xataab dafa xaaj àllam ñaari xaaj indi benn xaaj bi jox yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne ko Umar lii bëri na di lan nga bàyyi kër ga mu a genn wàll ga moom laa bàyyi foofu yonent bi sallallahu ne ko yàlla na la yàlla defal barke ci li nga joxe ak la nga desal demagul rek Seydina Abubakar yegg si ndekete alalam yëpp la guddi sëñ bi rek jox yonent bi Muhammad sallallahu alayhi ko xare bi yonent bi ne ko Aboubacar lii bëri na di loo bàyyi kër ga mu ne allah wa rasulu yàlla ak yonent laa fa bàyyi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne maa bayna imaanaykuma illa kama bayna qawlaykuma mu ne seen ñaari ngëm yàlla yi ñoo ngi mel ni seen ñaari kàddu yi loo bàyyi kër ga genn wala alal ga loo bàyyi kër yàlla ak yonent Seydina Omar daal di matt daaraamam ne maa saabaqtu Abaa Bakrin illaa wa sabaqani musuma rawante ak Abubakar lu may ma raw ma tey jé sa génn naa sama genn wàll alal yaakaar ne tey moom fii Abubakar du ma fi raw Abubakar dem buddi alalam yëpp jox yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam laaj nañ ko loon la bàyyi kër ga mu a yàlla ak yonent bi yonent bi ne law wuzina imaanu abi bakrin bi imaani ahlil ardi la rajaxa bihim suñ suñ peese woon ngëmu ngëmu yàlla gu nekk ci dënn Abubakar bi ñu peese ko ngëm yàlla ak mbindeefuk yàlla géeg ñun ñett liñ gëm ci yàlla lu ñëpp mbon mboolem mbindeefuk yàlla bi liñ gëm ci yàlla suñ ko peese woon ak ngëm yàlla ak abubakar yonent bi neen la rajaxa bihim dana leen lënk maanaam abubakar poids ngëm yàllam ki dana ëpp suñ poids yi ñun àdduna bi yëpp ak ngëm yàlla abubakar yonent bi saa sallam nag laaj nañ ko lan la abubakar gënee nit ñi ndax yonent bi nee na maa taxta qubbati sama ibadal anbiyaay afdalu min abi bakrin ci ron asamaan gi amul ku ëpp abubakar garaat ci yàlla ginnaaw yonent yi su yonent yi passé amul ku ëpp garaat abubakrin ñu ne ko lan lañu abubakar génnee mu ne maa fadalakum abubakrin bi katrati salaatin wala siyaamin wala walakin bi cheyin wuqira fi sadrihi génneewu leen julli yu bëri génneewu leen sarax yu bëri wala koor yu bëri waaye nag dafa am lu yàlla rokkos ci biir dënn bi loolu la leen gënee leen yàlla moom saa salaam walakin bi cheyin wuqira fi sadrihi dafa am lu yàlla rokkos ci dënn gi te loolu la leen génnee yàlla na yàlla may loolu. loolu moo xam naa ko am rek ah. loolu moo tax moom faalewul alal alalam yëpp la dindi jox yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xoolal Seydina Ali tamit da daan liggéey ci benn jardin yahud ñu koy fay ñeenti dërëm journée bi yëpp ñeenti dërëm lañ koy fay suñ ko ko saraxee benn dërëm bi daf koy saraxe bëccëg benn dërëm bi mu saraxe ko guddi beneen bi mu saraxe ko nit ñi di gis beneen bi mu saraxe ko fekk kenn gisu ko. mu nekk ñeenti maqaam yàlla wàcc ay alxuraan bi alladina yunfiquuna amwaalahum bi leyli wa nahaar sirran wa alaaniyatan ndekki moom la doon yàlla di waxal foofu ñay joxe seen alal bi leyli guddi wa nahaar ak bëccëg sirran ci ci lu nëbb wa alaaniyatan ak lu feeñ xam nga ñi alaluk àdduna yeggu leen fenn góor yàlla yi tamit noonu lañ mel góor yàlla yi tamit alal defuñu ko muy dara ndax yàlla moo leen waxoon ne lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun du ngeen jot lu baax ci yàlla lu mooy ngeen joxe la ngeen bëgg alal nag nit daf ko bëgg lool am ñoo xam ne génn nañ seen alal yëpp joxe waaye ñooñu ko nañ garaat am na ñu leen koy garaat nag am na ñoo xam ne dañoo gis la la nit ki gën a bëgg mooy bakkanam ñu daal di jaay yàlla seen bakkan inna allaha ashtara min al muminina anfusahum wa amwalahum benn lahumul janna yàlla ne jaay naa jullit ñi jullit ñi jaay nañ ma jënd naa lan lañ ma jaay seen alal ak seeni bakkan am na ñoo xam ne garaat seen garaat dafa yem ci jaay seen alal jox ko yàlla yàlla fay leen ajjana am ñoo xam ne paase nañ alal waaye seen bopp lañ jox yàlla seen bakkan bakkan nag moom la doomu aadama gën a bëgg ci leneen lu dul loolu parce que mooy yow sa alal sa bopp la ko gënal ndax soo dajoon fii ak agresseur ñu ne la soo ñu joxul li nga yor ñu ree la soo moytu dañ leen koy jox dem kon yow sa bopp la gënal sax sa alal yàlla nag nee na jënd naa ci jullit ñi seeni alal waaye ak seeni bopp seen bakkan bakkan nag moo gën a foor kon ki joxe bakkanam di ut yàlla kooku moo ëpp grave ki joxe alalam pour ut yàlla fii nii maanaa bi maanaa zahir la anfiq na nga joxe tarifan taalidan sa alal gu bees ak gu yàgg yépp fi talabi ridaahu ci càkkuteeg eh, sëriñ ki mais nag càkkuteeg ngir ma rek sëriñ bi mais nag yàlla balaa nga mën a jot dëgg-dëgg nga jox ko sa bopp fekk yaa ngi desal sa bopp sa bopp gi kiiraay lay doon ci boppam gi moom dafa am bopp nga am bopp <laughs> eh? waxtaan naa fi sànq maa ngi waxtaan ak benn gan gu jóge Ghana ma koy fàttali woy seexaani bi fii nit di dem ba fàtte bakkanam ngir bakkan xam nga yàlla moom ci boppam dafa am boppam la yow ci sa bopp sa bopp nga sooy dem ci yàlla nag dangay dem ba fàtte sa bopp ngir boppuk yàlla bi mooy kazalika tunsi a li nafsi habada li nafsi ma li nafsi li nafsi qad tunsi maanaa googu dafa xaw a jafe trop parce que nafsu il faut nga xam ko mooy lan eh, sa nafsu yow sa bakkan mooy sa bopp كل موم غينا بغ سيدنا عمر تخاونا كانم يونتي بي يونتي بي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ماله وولده ومن نفسه التي بين جنبيه كان دو گم سين يالا با يالا نانغو گم گلي موي ما گينال كو علالم اكاي دومم اكاي بكانم سيدنا عمر نك بكان مكو تي جاخال باسكي بكان موم مو دال دي واخ نك يونتي بي لا انت احب الي يا رسول الله من مالي وولدي سوى نفسي التي بين جنبي يا غالا گنا بگ سما علال اك سما دوم waaye sama bakkan moom bokku ci sama bakkan moom laa gën a bëgg te yàlla waxoon na ci alquran an nabiyu awla bil muminina min anfusihim yonent bi moo gën a yelloog jullit ñi seen bopp yow balaa ngaa jàpp sa bopp bopp yonent bi moo gën a yelloog sa bopp an nabiyu awla bil muminina min anfusihim yonent bi nag ne ko laa yuminu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min maalihi wa waladihi wa min nafsihi allati bayna janbihi kenn du gëm ci yéen yàlla lu mooy ma gënal ko alalam doomam ba ci bakkanam gu rokk su ci dugg dënnam ma ma gënal ko ko bu boobaa lay doog a dugg ci lislaam Umar nag daal di wax la anta ya rasulallah ahabu ilayya min maali wa waladi wa min nafsi allati bayna janbayya yow yonent bi kat laa gën a bëgg sama alal sama doom ba ci sama bakkan gi nekk sama digg dënn yonent bi ne ko alaana yaa Umar léegi nag nga dugg ci iman kon xam nga ndeke fekk njëriñ njëriñ li du bëri yàlla ne la la la lan tanaalul birra du ngeen jot yiw ci yàlla hatta tunfiqu ba ngeen joxe mimma na lenn ci la ngeen bëgg waaw ñii xool fekk alal lañ gën a bëgg fàtt nañ seen bopp ñii nag xam ne liñ gën a bëgg mooy seen bopp ñu joxe seen bopp bañ joxee seen bopp nag booba lañ am seen bopp ndax nit ki fekk joxeegul boppam amagul boppam soo joxeewul sa bopp sa boppoo la amee waaye ameewoo sa bopp ndax fu neex sa bopp mu yóbbu la waaye soo joxee sa bopp fu la neex nga yóbbu sa bopp ki dégg nga bi waaw joxewul sa bopp fu neex sa bopp mu yóbbu la waaye soo joxee sa bopp la neex nga yóbbu sa bopp ki dégg nga wax bi moo yàlla may nag ñu joxe suñ bopp xam nga nag loolu moo tax tarbi yu baax nit ki du pare soo ko laajee boppam dootu fa nekkati day fekk joxe na ko su dee ba pare la wax ba xam yàlla soo ko laajee boppam day fekk sax boppam nekku fa woon daf ko xamul woon rek yàlla nee ne ci alquran naqdifu bil xaqi ala al batili fa yadmaghuhu damay jël dëgg sànni ko ci neen dëgg gi effacé neen gi ah kon nee nga fa woon yàlla ne déet fa ida huwa zahiqun ndekete neen sax nekku fa woon la yàlla wax fa ida huwa zahiqun xam nga su waxee damay jël dëgg sànni ci neen neen effacé wu da nga yaakaar nee nga fa woon yàlla yàlla daal di tontu ne fa isa huwa zahiqun neen sax nekku fa woon est que dégg nga wax bi yaa ko yaakaaroon neen ang fa rek waaye neen nekku fa waaw <laughs> ah, yaa ko gisee woon neen yaakaar ne neen ang fa waaye neen nekku fa woon ah? waaw ma ne nga ne neen fa woon mus <coughs> ngaa gis neen waaw déet waaw waaw mus nga kaa laal mos la kaa xeeñtu ndax dafa xeeñ xeeñtu nga ko xeeñtu nga xet gi musoo ko xeeñtu musoo koo mos ndax saf na suukar wala déedéet waaw ma ne nee nga musoo gis neen waaw nee nañ lu dul lu dul lu dul yàlla neen la te musoo gis neen te lu dul yàlla neen la te yow mosoo gis neen kon li ngay gis na waaw déedéet loolu ko yonent bee ko wax loolu wax mu ne yonent bi lu dul yàlla neen la <laughs> lu dul yàlla neen la te yow musoo gis neen yaa ko wax nga ne musoo ko gis kon la nga daan gis boobu ba léegi daan la te. Euh, par exemple li ma comprendre ci wax bi. Euh. mooy nen boobu. Euh. par exemple lu bon nen quoi ah, waaw waaw waaw. déedéet du loolu. yaa yaa jàppee neen lu bon rek. waaw ah. nen neen soo xamee neen dégg-dégg da ngay fekk lépp lu nekkul yàlla rek loolu neen. waaw loolu yonent bi sax wax na ko mu ne asdaqu kalimatin qaalaha shaa'ir kalimatu lubayd mu ne. woykat musul wax kàddu gu nekk dëgg ba passé ba lu bay di waxoon ñu ne ko lan la lu bay di waxoon mu ne lu bay di nee ne ala kullu cheyin maa xala allaha baatilu wa kullu naimin la maxaalata zailu lépp lu dul yàlla neen la te bépp xéewal gu dul xéewalug yàlla gi dina deñ léegi yonent bi nee ne woykat musul wax dëgg ba yegg si ci dëgg gi xam naa yonent bi dëggal na ne lépp lu dul yàlla neen la kooku nag laa doon laajee man la ginnaaw lépp lu dul yàlla neen la te olof yi sax dañ koy wax lu dul yàlla yëpp neen la olof dañ koy wax léegi nag te neen kenn musu koo teg bët te yow nag ne musoo ko teg bët yow wax nga ko léegi nag dama doon laaj kon li ngay teg bët ndax xam nga ko moo tax yàlla ne naqzifu bil haqqi alal baatili fa yadmaghuhu te mooy jël dëgg sànni ci neen neen gi effacé wu fa ida huwa ndekete mooy mu ndekete yoo neen gi dafa dañoon gu yàgg xam nga loolu toujours ma wax leen baat bi man leen aarifina yi bañ tarbiyoo ba xam yàlla dañu ne kunna bina fa ribna anna fa baqina bila nahnu maana wax wax ji gàtt na waaye yor na maana kunna naa ñun la woon fa ribna anna ñu dem dëkk fa baqina fekk ndeke bila na du ñun du ñun la woon waaw ndekk ñun la woon ñu dem ñu dem ñëwaat fekk ndeke du ñun la woon dañoo yaakaaroon ñun la woon waaye arif billahi bi Muhammad ibn Rabi Xaatami wax na ko ne fa qaddim imaaman kunta anta imaamahu wa salli salaatal fajri fi awwalil asri fa qaddim imaaman jiitalal imaam goo xam ne kunta anta imaamahu yaa ko jiite woon yaa doon imaamam waaw soo tarbiya ba xam yàlla jiitalal imaam nga xam ne yaa ko jiitu ko ginnaaw nga jiitu ko ne yaa imaam bi soo xamee yàlla loolu jiitalaat ko sa kanam nga féetee ginnaaw day firi am amuk yàlla gi nga féete yow foo toll rek yaa ngi am man mooy mel ni yaa nga fa te arifin billahi ñemewuñ di wax man yalla di wax man mu nekk ñaari man te benn man bi ci man bël la jóge kon nag bàyyil sa man man gi nga dellu ci man manam gi soo xamee yàlla nag da ngay fekk ne sa man man gi nekk foon man manam gi fa nekk kon soo delloo da ngay jiitalaat man manuk yàlla ga nga xam ne yaa ko doon man man ki dañ wax <laughs> loolu mooy fa qaddim imaman kunta anta imama ki dañ wax باي نيني نغا انفيك نغا جخي تاريفا على الجو على الجو بيس طالبا اك بو ياغ ييب في في طلبي سي ساكو ريداهو سنغير مال سيري بادير نغا غاوتو اشار سيرين سو جوخو ني رك باي نينا بادير نغا غاوتو رك ديف لام جوخو توسي بي نغا ام سواب دولدي خيوك موم وارض وارض شيخك ولو ابكاك لكنه للخير قد هلاك وارض نغا كونتان لو شيخك سيرين ولو ابكاك دونت جويلو نلا sa sëriñ donte jooyloo na la hmm, na nga ko kontaanloo rek ko fexeel ba kontaanloo ko lakinnahu ndax moom kat xadaaka jubal na la lil di ci yiw ndax ci yàlla la jubal ku la jubal ci yàlla su la defee loo naqari sax bu la ko tere kontaanloo wa ar dina nga kontaanloo cheikh ak sa sëriñ walaw ab kaaka donte jooyloo na la lakinnahu waaye nag moom seriñ gi kat xadaaka jubal na la lil xayri ci yiw kon santee ko yàlla واحرص على الأوقات أي حرص واحذر من أن تبلى بلاء نقص واحرص نغا خير على الأوقات تي وقتي وقت جلي وقت وردي nga xër ci nga bëgg ko lool ay yaxir sin bépp xër nga foxale ci foxale moom daganul lu mooy ci mbiru yàlla ci mbiru yàlla moom foxale dagan na ci te loo am rek xeeb ko loolu moo tax mbiru yàlla mbiru àdduna yonent bi nee na mbiru àdduna dee ci xool ña nga nga sant yàlla bañ ci fuxale mbiru yàlla nag da ngay xool ña la ci tane nga jëm leen ëppale yaa ngi nga jéem a rawanteeg ña raw ci yàlla na xool ñi raw nga jéem leen a dabi waaye ci àdduna na nga xool ña nga tane nga jéem cee doylu ndax lii moo ngi fi waaye nekku fi te soo ko toppee dana la sànq waaye lali moo njëkk moo mujj kon nag xoolal ñala raw foofu nga jëm leen a dab وحرص نغا خير على الاوقات في وقت اي حرص بيب خير وحذر مويتو من ان تبلا بان لي نتو بلا نقص نتو وانيكو مويتو نك بان لي نتو سي بير تاريخ بي نتو وانيكو وانيكو موم نك خم نكو وخول وانيكو خالص دي علال وانيكو سي يالا لا وانيكو سي يالا نك موم دغيل بي وانيكو يتيغي وانيكو وانيكو نغا يالا saa boo yokk mbëggeel rek yaa ngi yokk ci yàlla maqaama yi maqaama yàlla yëpp nit mën na kaa dog ba des maqaama mbëggeel kullul maqaamaati tuqtaw illa maqaamul mahabbati maqaama bu nekk ci maqaama yàlla yi rek mën nga kaa romb passé ko mooy maqaama mbëggeel dangay ngay di jege yàlla di gën di bëgg yàlla yazidu zaman mahma tazayada shurbu min al xubbi faajab min zaman zaada bi shurbi da ngay gën di naan yàlla da ngay gën di naan di gën di mar mbir yàlla noonu la mel ديجن دمار يزيد زمن مهما تزايد الشرب من الحب فعجب من زمن زاد بالشرب عارفين اين يمون كي نان غو خن دي يوكمر يونت محمد صلى الله عليه وسلم بم بم موسى سكر يالله جي بليك موغي دوخ جيم سي يالله بس بو نيك موغي نان بما تخون شي عبد الله جانغالون ناني مو إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر yàlla na yonent bi ubbi naa la cig ubbi ubbi mubbi nan gu feeñ li yaxfir laka allaahu ngir yàlla jéggal la maa taqaddama min danbika kaw maa taaxara yonent bi rek am loolu ñu jéggal la sa bàkkaar bu njëkk ak bu mujj waaw maa taqaddama min danbika kaw maa taaxara léegi na Cheikh Abdoulaye ne ñu waaw bàkkaaru yonent bi moom kan moo ko xam ci yéen ndax yonent bi musul mooy yàlla koo xam ne musul mooy yàlla yàlla ne la ma jéggal la say bàkkaar xam nga loolu yàlla rek a ko sañ a wax yonanti bi am na ay baat yàlla rek a ko sañ a wax yonanti bi ma jéggal la sa bàkkaar te ñun ñoo ngi fas na yonanti bi amul bàkkaar yàlla jàkkaarloog yonanti bi wax ak moom ne su nekkoon ne law taqawala alayna ba'da al aqawid la akhadna minhu bil yamin suma la qata'na minhu al watin soo waxoon benn mbir nga ne maa ko wax te waxuma ko danaa dagg sa baat loolu yàlla rek a ko ñemee wax yonanti bi mu jàkkaarloog aadama mu ne asi aadamu rabbahu faxawaa yonent yàlla aadamu yàlla ne moy na boromam faxawaa beew na kenn ñemewul wax yonenti beew na mooy na boromam lu moy yàlla yàlla rek a ko ñemew yonenti yonenti yi duñ moy yàlla yonent yi duñ mooy yàlla yàlla ne aadamu asa moy na rabbahu boromam waxul mooy na boromam waaye faxawaa mu beew teg beew dëng beew xoolal loolu loolu yàlla rek a ko ñeme wax yonent ku dul yàlla ñemewu ko wax yonent léegi nag yàlla na yonent pour ma jéggal la sa bàkkaar si Abdoulaye mu nañu xam ngeen bàkkaarug yonanti beem gars yi xoolante xam naa dañuy wax ñun de mosuñoo xam luy bàkkaarug yonent bi ndax yonanti bi mosul mooy yàlla mu ne leen loolu zunubul anwaar la bokkul ak zunubul axyaar mu ne ñu bàkkaar yi ñaari xaaj xaaj lañ mooy yàlla ci biir yàlla ak mooy yàlla wali si yàlla ñaar la bee bee leer la bee bàkkaarug dem la ñun suñ bàkkaar yi bàkkaarug dem la ndax dañuy génn yàlla def ko <laughs> dañuy génn yàlla def ko waaye moom bàkkaaram bi génnul ci yàlla ci biir yàlla la waaye nag loolu du bàkkaar de bàyyi leen xel ci li ma leen di wax parce que aarifina billahi li ñuy tuddee bàkkaar mooy suñ la kiiraayee ci benn maqaama rek bàkkaar la suñ la kiiraayee ci benn maqaama benn maqaama ci maqaama yàlla yi su la réeree rek fekk xamoo boobu maqaamu bakkaar la yonent bi nag day dox jëm ci yàlla bés bu nekk moo ngi xotti maqaama dem ci beneen bi bi mu yegg seegul xamagu ko loolu bakkaar la ci moom zunubul anwaar la bàkkaar leer ba ba muy xotti makaama boobu xam lu nekk ci moom ñu jéggal ko bàkkaar boobu mu jàllaat ci beneen bàkkaar xottiwaat maqaam boobu ñu jéggal ko boobu maa taqaddama min zanbi kaw maa taaxar loolu moo tax bàyyi nee ne dalaalun bi zaatillahi aynu وإياك والنقد المؤدي إلى الباس كان دلال رير بذات الله كبير جمك يالك أين هداية موينجب waaye lii problème mooy dalaalun an zaatillah nga réer walis yàlla nga dem ci biir yàlla ba réer ak yàlla nekk ne nga réer di ko xool fan la maqaamu yooyu bokkul kon ndeke réer ci biir yàlla moom mooy indi bàkkaar yooyu parce que taxruqul xujuba baaduha taarifuha wa baaduha la taarif yaa ngi xotti kiiraay yi yenn yi xam nga ko mooy yi nga passé waaye am na yoo xam ne xamoo ko fekk xamagoo ko nag bàkkaar la waaye bàkkaar googu de moom ku ko am baax na parce que boobu kenn mucc ci waaye yeneen bàkkaar yi moom na auzu billah ñoo ngi ciy musul yàlla dem ba génn yàlla moo tax waa ji benn aarif billaay ne woon ko dangay ngay mooy yàlla mun leen ndax mën naa mooy yàlla su ma mooyee yàlla ci fan laay dal xam nga mën nga wax mooy naaj <laughs> <laughs> wala moy na ki bi kan nga moy dara dal ci leneen wala nga sànni xeer ñu eh moy nga auto ba nga doon sànni am na dal soo moyee rek am na looy dal mu ne su moyee fan lay dal <laughs> ah lu dul yàlla nekku fa suma ko moyee fan lay dal kon ñi moy yàlla am nañ yaa ngi dégg am nañ mbir de mu ne eh, waxaris na nga xër alal awqaati ci waxtu yi ay xirsi bépp xër waxdar na nga moytu min an tubla bañ lay natt balaa a naqsi natt gu wàññeeku ci yàlla bàyyi ne ne ida raayta soo gisee mazharal jamaali laa tabga warda mazharal jalaali ida raayta soo gisee mazhara feeñukaay al jamaali taar su la yàlla wonee taar ak rafetaay ak bànneex ak lépp lu neex laa tadxabul bew sànni loolu fële sa ginnaaw war da na nga gërëm kontaan ci mazharul jalaali feeñukaay gu weex ak màggaay xam nga am na yàlla am na ñaari feeñukaay benn bi jamaal la taar la beneen bi jalaal la màggaay la taar bi nag moom lu neex la lu rafet ak lépp loo xam dafa jëm ci bànneex rek ci jamaal la am na ay wali yàlla yoo xam ne mazhar bii lañ feeñee ñoom lu neex rek yaa ngi dégg de am na ñoo xam ne nag jalaal la ñoom lu weex ak lu métti rek am na ay wali yàlla yoo xam ne suñ yégee ne ñoo ngi bànneexu ci dara rek dañ koy bàyyi bëgguñu lu neex bëgguñu àdduna ak lu jëm ci àdduna lu weex rek lañ bëgg loolu moo taxoon gaa yi njëkk ya daan dem ci àll yi di fa nekk ay fanweeri at ci biir àll yi di lekk xobu garab yi di naan ndoxu déeg yi ba yàlla may leen fatu lan moo tax ndax yàlla ci jalaal la gën a jege ci jamaal ñaar yooyu soo leen tollalee ngay xool ban la ci yàlla gën a jege ci jamaal bi taar bi ak rafetaay gi wala wexaay bi yàlla ci wexaay bi la gën a jege ndax yàlla dana la jox xéewal jël xéewal gi kiiraayee la ko nga nga nga kontaan ci xéewal gi sawar ci xéewal gi ba fàtteku xéewal xéewal gi loolu day am waaw nga sawar ci xéewal gi kontaan ci xéewal gi yitteewoo xéewal gi ba fàtteku xéewal xéewal gi waaye nag yàlla su la fi tegoon nattu léegi jalaal yi dal sa kaw <laughs> balaaw yi dal musiba yi dal su yàggee da ngay taxaw ne kan moo ma teg lii nga daje tabaraka wa <laughs> foofu la gën a jege fee nag moom xéewal gi moo lay muur ba doo gis ko xéewal xéewal gi waaye fii nag jalaal gi su la nee corox rek danga taxaw di gestu lii lan la sooy gestu lii lan la rek danga daje dajeeg borom lan la gi mooy tabaraka wa taala tax nag bàyyi nee ne su la jamaal feeñoo laa tarxabul beew de sànni ko fële war da nga kontaan mazharal jalaali feeñukaayu màggaay ndax innahu fi lil jalaali aqrabu min ndax yàlla ci jalaal la gën a jege ci kaw loolu dañ koy firee dafa am firi yaatu suñ la laajee ban moo man jalaal ak jamaal ban moo man looy tontu jamaal mooy taaruk yàlla gi ak bànneex yi ak yu neex yi jalaal mooy yu wex yi yu tàng yi yu ñàng yi yu métti ñoom ñaar ban moo man hmm? yaakaar naa man ma joxal ci benn misaal idal janaazatu wal aruusu talaaqaya wa raayta dam a nawaa'ihin yataraqraqu sakata allazi tabi al aruusa mubahatan wa raayta man tabi al janaazata yantiqu céet mariage su fi amoon céet gaa yi di céet gi di fecc am néew bu ñuy yóbbu fii ba gaa yi daje ñee di reetaan ñee di jooy ñan ñooy noppi ña doon reetaan lu fa xew li lii néew la néew la ñoo néew la yaa dégg de léeg-léeg nga gis gaa yi sax léeg-léeg nga gis gaa yi organisé fi benn benn maanaam baal wala kols bu mag ñu ne eh bàyyi leen am na ku dee fii am na ku gaañu fii may leen leen kii am na ku gaañu fii rek tax jamaal ba ngeen naroon def ngeen bàyyi ko xam nga ne jalaal moo man jamaal hmm? jalaal moo man jamaal su ceet gi dajeek néew gi ma woykat bi ne ne euh, sakata allazi tabi al arusa mubahatan ka toppoon ceet ga day noppi gëlëm wa raayta man tabi al janazata yantiqu nga xool ña doon jooy topp néew ga di jooy di continuer seen jooy kon xam nga ne jalaal moo man jamaal loolu moo tax bàyyi ne la soo gisee jamaal bu bul ci bul ci topp rek de yaakaar ne noonu la rek nga kontaan déedéet waaye nag war dana nga kontaan ci mazharal jalaal yi ñaar yëpp soo leen boolee nag ngay cof ci jalaal bi di cof ci jamaal bi nga am kamaal gi kamaal nag fa la mat gi nekkee mhm, mhm, ah, kamaal fa la mat gi nekkee ah. xam nga suñu waxee jalaal mooy maqaama yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mazharul jalaal la feeñee jalaal mooy lu ñàng te wex xam nga jamono yooyu mooy jamono jaas yi hmm? xare yi xaswatu badrin te jamono googu mooy jamono lii yàlla nee na nga def lii nga bàyyi lii xam nga defal lii bàyyi lii dafa métti loolu yëpp jalaal la Cheikh Tidiane ñëw mooy indi jamaal gi jaaral yoon gaa ngi nii doo am bila taabin wala mashaqatin xatta tanaala muraadaka yi tabgi ba nga jot la nga doon sàkk ci yàlla te ci saatul faati rek nga koy amee xam nga loolu jamaal la rafet na lool neex na amul benn jafe-jafe waaye nag ñaar yooyu soo leen boolee ñu jox la kamaal bul xam nag kamaal bi fan la jóge est ci jalaal gi la wala ci jamaal gi la wala ci ñoom ñaar la su ma lay tontu dama lay wax ci ñoom ñaar la waaye nag nañ nam génnee ci ñoom ñaar dafa jafe xam moom laa doon nittali keroog xabib ma ne ko al ana daimu dafa jafe xam al ana daimu soo ko buggee xam rek da ngay xam kamaal lu pare al ana daimu mooy léegi ju sax léegi ju continuer léegi ju continuer kan moo ko xam mooy ku xam yàlla moo xam léegi ju continuer ndax yow am nga yaa ngi dund yaa ngi ak place yaa ngi ak jamono yàllaa ngi dund waaye fa muy dund amul place amul jamono te moo ngi fii mënoo ko fee dàq moo ngi fi nan la fi nekkee ndax si sa jamono bi la nekk wala déedéet ñemewul ñemewoo koo teg sa jamono bi ñemewoo koo teg sa place bi ndax moom fa muy dund amul jamono amul place moo nga fa te moo ngi fii ñemewoo koo fee dindi nan la nekkee fii moo ngi ci al ana daa imu léegi ju sax léegi ju sax kenn xamul démb la kenn xamul suba la léegi ji mooy léegi ji ndax dañoo jël démb taxañ ko indi ko si jël suba taxañ ko indi ko si muy muy dox yàlla nekk al ana daa im al ana daa im mooy léegi ju sax al ana daa im kenn mënu koo xam lu mooy nga xam kamaal léegi nag al aana daa'im googu di yàlla di dund léegi ju sax jooju di yàlla di dund kenn jëlewu ko ci guddi kenn jëlewu ko ci bëccëg waaye sax ci guddi ak bëccëg lañ ko jëlee mais nan lañ ko jëlee noonu lañ jëlee kamaal ci biir jalaal ak jamaal noonu lañ jëlee kamaal ci biir jalaal ak jamaal mais ni ñuy jëlee kamaal ci biir jalaal ak jamaal mënoo ko xam lu moo nga xam nan la aana daayim fàqe ko ci guddeeg bëccëg te bokk ci bokk ci guddeeg bëccëg yàlla yàlla fi muy dund amul guddeeg bëccëg waaye ci la bokk ndax moo ngi mënoo ko fee dàq kenn ñemewul wax yàlla nekkul <laughs> ah kenn ñemewul wax yàlla nekkul mais yàllaa ngi fi est-ce que dégg nga wax bi de lu moo tax ida raayta mazharal jamaali laa tanxa warda mazharal jalaali 么？